ci bés yi weesu dañoo seetlu ni am na loo xamante ni yoon moo nu ko may ñun en tant que ay citoyen waaye dañoo gis ni kat am na ci wàll yi muy nguurug Sénégal bu ne loolu ñun bi ñu ko fi defee bi jiitu mooy pour rappel euh, collectif euh, bi nga xamante ni ci la bokk muy collectif ñoo laan dafa déposé woon ab lettre ca jamono yële ca gannaaw ba seetloo ni askan wi dañoo yokk njëg yi te ba pare njëg yi ci boppam ba mu yokkoo am na leneen loo xamante ni mooy pour nga gis li nga war a jënd sax dafa raar ñu ne nag comme loolu am na nañu dem seeti ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu woolu ñi ci nekk ngir waxtaan ak ñoom ngir mën a am information bu wóor balaa ñoo dugg ci xeex bi nii taxoon nañu seet képp association consumériste yi nekk Sénégal yépp yu ci ëpp bokk waxtaan ak ñoom pour pour wax pour ñu wax ñu lii maanaam lu ko lan la ak problème bi fan la bi ñu defee loolu ngir bañ ñu dut baaraam parce que bëgguñu di wax ñu ñuy dut baaraam ci li ñuy wax bi ñu dajalee suñu ay information ba pare ci lañ xamee ne nag jot na ñu jug taxaw non seulement ngir naqarlu yokk bi nga xamante ne état bi mi ngi ko yokk daara yi waaye ngir naqarlu euh, ci boo demee ci koñ yi di nga gis kii di jaayee 600 kee jaayee 700 kee jaayee 800 loolu doon loo xamante loo xamante ni corps de war a def loolu détachement au ministre du commerce la te gis nañu liggéey boobu amul. loolu ba mu amee ñu déposé lettre pour ajjuma ji weesu bi ñu demee ba ci alxamis ji la ñu préfet bi woo bañal ñu ko ci lan lañu la ñu ko bañalee ah ngir kat trouble à l'ordre public wala propagation du coronavirus ku ñu yàq xanaa sport amul xanaa daje yi war a am yëpp gisuñu ko muy am kon loolu taxawul te ñun ci suñu ñi nga xam ñoom ñoo yor suñu ay commission juridique démontré nañ démontré nañ loolu ba wan ne ko ni loolu loolu mu décidé loolu tegu ko fenn ñu introduiraat pour wala suñu patriotisme wax ni kat bii wax nañ ñu dinañ introduiraat pour ajjuma bii di ñëw di le 17 pour def ma grand rassemblement ci wàllum yokkute dund bi diggante rond point place de l'obélisque ba rond point ci diggante bi am suñu ay mbokk yoo xam dañoo fekk si ci xeex bi comme mën naa koo ñi fi toog rek ñu àndandoo def conférence de presse ngir waajal aussi marche bu waroon a am démb te waa ànd taxawu Sénégal woote woon ko fële ca Géejawaay loolu ci ku ne teg na ci sa bët ci xoqotal ku ne teg na ci sa bët ci jaay doole ku ne teg na ci sa bët ci sëmbaxloo boo xamante ni état bu Sénégal def na ko ci kaw ay citoyens yoo xamante ni dañoo jógoon tout simplement pour def seen devoir wala def li nga xamante ni yoon moo leen ko may ñuy naqarluwaat aussi ci yéex bi ñu yéex a yéex a yëg wala bi ñu yéex a informé sax loolu tamit problème la boo xamante ni dinañ ko wax au niveau des préfectures te loolu du yoon leneen ni mooy bi ñu defee loolu ñu def ba pare jàpp suñu ay camarade saax saaxaa leen dóor leen mën a mën naa ne sonal leen jàpp leen yóbbu leen tëj leen te fekk leen giseen seen devoir loolu nag tax na force yi nga xamante ni ñoom ñoo fi dajaloo tey jii nga gis leen ñoom it ñu jug xam ni kat lii jëmul kër xam ni kat kii bu nu ko bàyyee li mu nar a def moom wax dëgg yàlla mën naa bañ a arrangé kenn moo waral suñu dajaloo bii tey comme ni ko sama naa naataangoo bii euh, limee muy ñoo muy FRAPP muy FDS muy And taxaw Sénégal muy Africa First muy nitu dëgg des valeurs muy bépp organisation digne et ci foofu may lancer un appel ci bépp organisation boo xam ne yaa ngi liggéeyal da Sénégal rek tax laa ñu ngi lay woo ci lii di la wax ne ci mbooloo mi ci lañ mën a amee li nga xamante ni moom lañ bëgg gannaaw loolu nag ñuy fàttali ni naqar bi ci lañ jógee di naqar li état bu Sénégal defam ñun di naqarlu état bu Sénégal xaj bi ñu xaj suñu droit suñ ay suñu ay droit waaye di di fàttali ni nag comme yoon jeexul waax sul di jeex ajjuma bii di ñëw fekkoon na ñoo laan ko introduire jëj bu yàgg ci ci ajjuma ji weesu demande pour manifestation pour ajjuma bii di set ñu war ko ànd ak ñi fi teew ñëpp incha allahu rabbi doonatul ñoo laan waaye FRAPP la doonatul ñoo waaye FDS la doonatul ñoo lànk waaye nitu dëgg des valeurs la doonatul ñoo ñoo lànk waaye Africa First la doonatul ñoo lànk waaye ànd taxawu Sénégal la ci ñi nga xamante ni tey waroon nañ leen muy central syndicat yi ak ñi nga xamante ni mooy association consommateur yi nga xamante ni fekkoon nañ leen ci ba pare ñoom ñëpp doon nañ benn ngir waajal bis bi nga xam ne moo di àjjuma bii di ñëw rond-point place de l'Obélisque ba rond-point RTS ñi ciy woo sénégalais parce que suñu droit la yoon moo ñu ko may marche pacifique la ñu woote bi